3S Pro. maa ngi bëgg wér maa ngi sant bu baax di gërëm di nuyu waa Sene TV yëpp waaye sant doom day max bi ana rafetlu ko ah rafetlu ko muy initiative bu rafet wax dëgg yàlla bu ñëpp di rafetlu sax yee muy loo xam ne tamit day yokk làmb yee xanaa yokkute laa ci gis ah, ak euh, fair play xam ni mbar yëpp ñoo bokk ndey ak bu ñu reyantee ci biir géew bi bu ñu génnee ñëpp ñoo far xam nga ñooy may ndax ay saal ku ci ne ku ci ne yaay tëral sa morom ku ci ne yaa tax sa morom am dépasse mën naa wax loolu waaw bu ñu la yëkkatee ay millions jox la ko rek xamal ni sa moromu mbër a waaw kon ñu ñëpp ñoo far. ah no dañ leen di dóor waa parcelle waaw parcelle yu yóbbu ndam li loolu kenn war a ndew non eh liiru ko day xumbal noonu la ñaar la 1 1 gis léegi wala wala wala ñaar wala 5 a sax est-ce baaxul <laughs> euh, waaw damaa génnoon nag fi mu ne damaa damaa def xam a vite fait pour daw mën a yegg si heure bi quoi mais comme gars ci biir daa mel maa ngi ci biir benn la. yaa dam day euh, xam naa maa ngi waay maa ngi fi ba ci kanam daal. yaa waaw mais. Euh, du lu ma gëm lool lool lool nag. yow ne nii. <laughs> yandaa boobu bii nag du benn quoi. <laughs> non non bii bii moom. teew leneen la mais <laughs> xaw booy yi ma gis léegi moom waaw ñoo ngi nii neexuñu neexuñu deret neexuñu deret dam day xam te xam xam sa bopp te te te te te ni ñu koy waxee xam sa bopp moom xam sa bopp si jaamu yàlla bokk waaw bàyyi ma topp seen ginnaaw incha allah ñu ngi waajal euh, suba incha allah euh, inauguration salle musculation boo xam pour làmb la ak mbëru làmb yëpp ñu siy woo ñëpp nag suba incha allah Cambérène si ci euh, deux voies yi deux voies VDN yi route de Cambérène yi sortie bi rek exactement suba cinq heures incha allah ñi ci woo ñëpp di ci woo nitu làmb yëpp incha allah rek ah non de publicité sax ndaxte euh, loolu làmb lañ ko defal xam nga tey toujours dama koy wax ah, maa ngi koy wax toujours si sit internet yi wala loolu. Euh, ba may doog a ñëw site yëpp may woo pour jël si ma. man leen xaar leen tuuti. su ma ne su ngeen xaaree tuuti naa ñëpp ñëw par benn benn mais depuis ba mu annoncé salle beeg léegi ñi fixé woon ñi fixé woon date bi sax date pour def taw man interview sax dañoo arriéraat ndax pour ñoom bu ñu jëlee man interview publicité la te mënoon naa jóge am xaaral xaaral rek ma wax xaaral rek wax dama ko seetlu Sénégal mënoon naa jóge Amérique ñëw yor samay samay ay whatsapp ak ay ay ay nangam sangam di soob di wax ne Amérique a dàq fépp ci àdduna bi. def fi deux mois un mois quinze jours li ma yoroon jeex ma daw dama liggéey Amérique jël sama xaay ñëw investir ko si réew mi investiraat ko ci làmb bi nga xamante ni tey moo ma jox li ma am tey su ma ñëwoon tey yor sama sóob yor sama benn cinq cent mille yàq ko fi delluwaat ñëpp ay njëkkante di ma jël pour quoi ma jël samay million investir ko pour làmb te ñu fixé woon sax dañoo arriéraat ndax yaakaar nañ bu ñëwee salle bi dafay am nit ñu ñëw ak ñu bañ a ñëw moo ci am salle bi day am nit ndax ba mu koy ba koy liggéey di ñafe gisuma leen woon kon suñuy ñëwee ak suñuy ñëwul moo yem saal bi dafa am nit waaw suba allah Cambérène maa ngi ciy woo ñëpp nag waaw pour Cambérène si jumaa Cambérène mi ne rek boo ñëwee boo fan la saal bu bees bi nekk dinañ la ko joxoñ waaw waaw jaajëf te mu danta maa ngi lay allah rafet na trop wax dëgg yàlla te match bi neex na quoi wax dëgg yàlla ñu dugg noonu def suñu per football ñu def ñu ngi ñu ngi may suñu yeneen rakk yi ñu football non neex na trop match bi neex na trop quoi wax dëgg yàlla am na rigueur quoi waa géej waaye ñoo ko bëgg yàq parce que dañuy dugg ci biir terrain bi te te fort rek lañ def ah loolu amul amul fii Papa Sow ngi mag Modou Lô tey bu fi nekkoon mu ngi ci terrain bi moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm fa nekk. wax dëgg yàlla lii rafetlu nañ ko quoi macha allah ah mbëri dañoo ragaleew be kii Modou Anta lan la ma mbëri di dawee loolu laa bëgg xam quoi parce que gars yi gars yi ñu ngi seet ñu ngi seeti promoteur ñu ngi seeti ay mbër waaye képp kuñ ci seeti da ngay jëli leneen quoi man loolu jaaxal na ma trop wala dañoo bëgg ma immigré ji bokk pourquoi pas non combat yooyu yëpp seet nañ leen pour ñu doxal sama diggante ak ñoom. ay combat la. pare naa pour ñëpp. déggoo lu ma la wax làmb ji lañ fi nekkal ñun bàyyiwuñ fi benn mbër képp ku ñu làmb boole dañuy bëree. waa di wax ni wax dëgg yàlla li initiative bu rafet la nañ ci xool parce que waa géej waaye waa parcelle lépp benn la supporters yi ñu xam ni lii folo quoi comprendre nga lii lii folo dañuy kaf dañuy reetaan. moo gën ñuy nem stade di dajji seize yi xam nga di sànni xam nga loolu rafetul quoi jaajëf. ok moo daan. ñu mënee la nga ñëw égaliser ci technique bi. feemu kase. ah feemu kase feemu kase. mais Balla Gaye neen day dugg day dugal de. waaw waaw waaw mais deuxième mi-temps bi xam nga bii dama ko dencoon dama doon compte bloqué. waaw débloqué naa lépp. ah day ñëw bii day taw tap tap tap tap incha allah. mais papa sa joueur yi gis naa ñoo xam duñu ay mbër de. walaay ñëpp ay mbër la ñu. booy yu mën a fubal. suñu latéral bi non ñëpp ay mbër la ñu. excentré bi ay mbër la ñu ñoom ñëpp ay mbër la ñu xaar ñu dugg. mais jaar ma ci football de. mais <laughs> du man de man coach ma de coach baa ngi ne de. mais damay doxal di yuuxu rek nga ñëw deuxième mi-temps indi ñoom Balla Diouf. non Balla moo paas bi Balla bi bi. mais Balla sànq wax naa moom fee mais xam-xamu football la wax. ah, ah ñun xam nga nag dëgg football la boo juddoo da mën football mën bëre ñaare moom ñoo ànd moom. waaw mooy loolu quoi. mais après acte bi ñu ngi koy xaar ngeen def kooku waa Pikine. waaw loolu la ñu bëgg naa ah. ba Thiès pourquoi pas mais Modou déggoo ngeen ci match bi comme que nekku Modou waaw Modou moom amoon na amoon na yéene ñëw mais comme que dafa nekk bitim réew moom réaction mooy loolu waaw <laughs> bëgg rek daal bi fi amoon moom mi ngi ci woon man rek incha allah ah. na lu ma rek tuuti tuuti rek ñu ngi lay kontaane naa Alboury ñu ngi lay di la jox sa waaj ah mboo ko xarit tey ñu ñëw fekk la fii ci stade Amadou Barry. ñëw naa miin. waaw man xamee ma sax laam man damaa mën a fubal. yow mën nga fubal. pire. mais gis nañ ne un la de. waaw man maa ngi doog a yegg si laa yegg si ah. dama dama añ xam nga diigal soow bidanti maa ngi nii doog a yegg si. tey Alboury ñu bëri xamee ko ci làmb tey ñu ñëw bëgg koo seetaan ci terrain bi tey Alboury ban poste fubal. fii laa gën a mëne man lépp dama yàlla dafa dogal lépp laa mën. ban poste ngay see. dama polyvalent boo ma tegee ci ailier terrain bi. damay def différence. nga teg ma ci euh, touche yi. damay damay damay def différence. foo ma teg maanaam damay dugal. damay dugal damay góolu sax. mais mais Albouri Albouri dafal tuuti ñu waxtaan Albouri. ailier yëpp mënoo ko fubal ndax joueur ku ci nekk am na fu ñu la teg mais da nga naan poste temps laay fubal. dama la bëgg a xamal ne jamono tëre di rek. mais man xaalisu fubal dama ko waroon a lekk bu yàgg. mais Albouri yoo xam naa xaalis yëpp nga lekk. non non xaalisu ah. mais situation oblige. ndeysaan bilaahi mais ginnaaw bi ñu ci loolu acte bii waa Géejawaay def ak waa parcelle tey nga ñuy wax ñi nga xam ne ñoo ngi lay seetaan di say naataango mbër di say naataango écurie tey loo leen di wax waaw loolu loolu laa wax damaa dugg ci si stade bi barki yonent yàlla Muhammad sama yaram daw ma xam ne lii sport rek moo ko mën yow tey yi boo fekkoon arène nationale duñ mais saison bi tëj xam ñu jël lépp tëj na la xam ne sport kese la waa Géejawaay euh, woo ñu ñëw fii xam nga kaf foo agré lii nag du nu dara mais ci yi jël exemple ñu xam ne affaire yi lu metti metti samedi dimanche bu lëndee day jeex supporters yi xeex ndax ak supporters keneen ñu naan Pikine la affaire bi Guédiawaye la affaire bi parcelle la affaire bi du foofu mbër bu ne Balla Gaye dafa war a am parcelle ay supporters yu bari am na ko yi Modou Lo dafa war a am euh, Guédiawaye bu bari Eumeu Sène dafa war a am comme noonu. xam ñuy demalante di dikkalante buñ dajee ci enceinte bi nag. supporters yi dañoo buñ nekkee ci kaw dañoo war di kafooree. supporter ku daan ku daan ñu xam ne lii la yàlla dogal. ndax nit bu doon maye boppam. kenn du daanu. mais yàlla mooy maye. mbër day def li mu war a def yëpp. entraînement lu mu war a entraîné yëpp. dem fi mu war a ñaanloo yëpp ñëw yàlla yàlla xañ ko jox keneen. macha allah kon kooku bu sañoon moom mooy moom mooy am. moom mooy am xam nga mais kon nañ ko comprendre noonu. xam na affaire yi. lépp ci jàmm lay mujj samedi vendredi samedi dimanche lu mu métti métti lundi nañ jël lépp tegaat ci suuf àndaat bokku ndey bokku baay tey ji nii waa parcelle ku ci xewle da ngay gis waa géejawaay ñëw mu muy lu neex muy lu naxari waa géejawaay ku ci xewle da ngay gis waa parcelle def déplacement ñëw muy bànneex muy naxar hmm. kon nag affaire yi lamb la lamb day jeex ñun ñi ñëpp dañuy jékki-jékki màgget pa paay ancien gloire yi fi newoon yëpp gis nga ni mu demee dañoo jékki-jékki bàyyi xam nga te seen biir dafa rafet yaa ngi dégg. man Géejawaay sax dama fay bëgg jabar. ndeysaan macha allah Géejawaay dama fay bëgg jabar loolu la Alboury wax mais bu ñëwee Alboury ci làmb ñu déggoon ne Alboury Issa Pouye taxaw na ba léegi fan la loolu toll. waaw instant bi am na combat amul droit di wax ci benn beneen mbër instant bi jara deux laa am. mais am nga combat de xale bi jara deux. waaye barke yonent yàlla Mouhamed jara deux am na combat de xale bi Alboury. mais est-ce que xam nga ne jara deux wax te doo du ko defaraat. nee naa nit nit nit ameewu ko gàllaaj nit ameewu ko doole ba yàq wax te doo ko defar. ah jarul de woon ñu doon yàq te ko defar. affaire daal jarul muy bari ndax euh, signé xa contrat bi. ku ci nekk jaar nga sa ruq nekk sa bopp. yaa ngi dégg bu jour ba euh, le 27 xaw ma xaw ma yaakaar naa jàpp nañ date bi ba nag lu waay mën def. ku yàlla may ndam ndax ndax man moom man ndam keneen moomul ndam yàlla moom moom ndam yàlla mi moom ndam nag sa koy maye yàlla na ma ko may comme nam moo ko daan maye. ma ñibbi ja na ko nuus waaw waaw na ko nuus ñibbi noos. <laughs> oh là là na ko nuus ñibbi noos. 3S4.